Heavy Mess.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 ci saafara mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sàkk ki saafara waaye na jàngoro réew mi moom kenn saytu ko ba ki sàkk saafara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Medina romb na doy waar ndaw si jigéen daal moo fa doon boole ay xale yu jigéen yu am vingt et ak vingt ans ak ay góor ñu leen di tëddee ba noppi di ko fay. kës kay ma ndaw si mu ngi wéyoo ci turu FG xale jigéen yi mu doon jaay kenn ki mu ngi woo ci turu MD ka des di woo ci turu ndaw si nag li ko daaneel réseaux sociaux yi la ndax ab policier daa gis benn pub ci réseaux sociaux yi buy publier ab salon de massage ñu def ci ay photo yu doy waar maa ne photo yoo xam ne maara détaali laa wax ñu naan déetawaay ñu affiché ci ay numéro bi policier bi gisee loolu ci la daal di woote ci numéro bi daal di jot FG ñoom ñaar daal ñu waxaale waxaale ba juboo ci ab xeetu massage ba wadd boo xam ne tarif bi quarante la ëpp law bi loolu amee nag ndaw si daal di koy tegtal fi mu ne ci la flic bi informé ay ñoñam laata muy dem flic bi mu demee ba dugg ci béréb bi ne gaa yi nañ ko xaar ci biti noona la ñu def ba teg loxo ndaw si ndaw si nag biñ ko yóbboo à la barre des di ko toppee li ñaan proxénétisme maanaam jël ay jigéen di leen booleeg ay góor ba noppi di fayeeku fësal ay photo yoo xam ne nii maara dee taali ak ñàkk a yor carte guy wane ne mën ngaa jaay sa bopp ndaw si nag ci kanamu yoon li mu wax moo doy war ndax moom nee na deful lu dul massage sportif ak fi <laughs> waaye ma ne xeetu massage yooyu moom war ngeen mu ko wax waaye ndaw si li ko ray mooy xeetu massage bi na def koy def te mu tudd nuuru massage massage waaw luy nuuru massage nuuru massage boobu nag nee ñu ab xeetu massage la boo xam ni xale bi la koy def day summeeku ba ne dung jël yaramam di ko jonj di ko jonj ba nga ne këlëb waaye yéen lii am na ci réew mi xale yu jigéen yi mu doon utiliser na bi ñu leen laajee ñoom dañu ne massage dong la ñu doon def ak lu ci mënti xew mbir maa nga ca loxol yoon hmm, ma ne massage yi dañ toj dëkk bi de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa Linguère romb na doy waar ab waay daal moo fa jàpp jabaram dóor ko ba maara deetaali fi mu ne waa ji teg nañ ko loxo ma nga ca nungu siin <laughs> waaw góore waay waa ji mu ngi wéy ci turu di ab sàmmkat moom daal nee ñu bi mu takkee ñaareelam boobu ba léegi mayu ko jàmm dóor guddeeg bëccëg ndaw si nag bi mu demee ba sonn ci dóor yi ci la fabee ay bagaasam dem kër waajuram waa takk daal di ko fay fekk ngir jël si ko indiwaat ko waa bi mu raayee raaye ndaw si bañ ci la ko fa jàppaatee door ko ba maara dee taali ma leen kër googu nag xanaa ay góor ne xanaa waa ji fekku fa ay góor xew ci réew mi ëpp na mu doonoon seen xibaaru buzz dig dage beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz